été vraiment accentuée cette année grâce à, à l'entregent et le, la disponibilité de Serine Salou Mbake, Ibn Serine Maud Abdul qui est le président de la commission communication. Ce volet a été vraiment accentué et on a vu l'impact sur le Magal. Euh, euh, du point de vue de l'organisation aussi, à des commissions chaque euh, commission de l'organisation, mais il y a la commission de la restauration, la commission de l'accueil, il la commission de l'organisation euh, de la cérémonie officielle, et, etc., Et tout ceci a apporté euh, une, une, une, une amélioration remarquable pour cette organisation du Magal de cette année. Euh, euh, les chefs de service départementaux, le, le, tout ce qui a été dit Euh, pendant le CRD et pendant le CDD, les chefs, les chefs de services ont fait vraiment le maximum de ce qu'ils avaient promis. Rien n'est parfait, rien n'est acquis, mais vraiment ils ont fait leur boulot. Euh, et le marabout, c'est le Cheikh Abdul en est conscient et, euh, les, remercie profondément, ainsi que toute la famille de Seigneur Abdul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 <coughs> ñëwoon nag ci ndigalu Serigne Cheikh Deme délégation bi fi yebal ci am na jot moom la yebal ci waat bi njiit nag di Serigne Cheikh Ndiaye rakkam wala ko lenn ci rakkam Serigne Saliou Ba Serigne Cheikh Assou Ndiaye ak lenn ci doom yi ak dongo yi. mu ñëwoon teewal si ko fii ci sëriñ bi at mu jot nag loolu ci sëriñ bi siyaare ko ko di sàkku it ay ñaan nag bis bi ci sàkku yi ñaan di sàkku wàllu ñaan mboolem taalibe yi <coughs> yàlla defal leen wér defal leen xéewal te xiir leen ci sëriñ bi ñu bañ koo génn fenn ñu dikkoon nag doon ko doon fi teewal ci sëriñ bi rek kàddu yi nag moom xam naa du gudd ndax dañu fee ñëw ci ci ni ma la ko waxee rek ci ndigalul sëriñ bi rek ngir ñu teewal ci ko fi nga taalal ma sa micro ma ne ñàkk a sànni kàddu waaye ñun fii sax amu na fi kàddu ndax Cheikh Ibrahima moom ci kër Serigne tubaa la mu fa am mooy déglu baatum digal bu ko déggee rek jëfee ko waaye sañu fee wax dara ñoo ngi jéglu sax kàddu yi ñu yëkkati di ko wax mu mel ni dañu fee am baat te ñun su benn baat lañ fi mooy baatum digal rek ñu dégg ko du ko jëfee. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baado asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mm, Sëriñ Jibril Lo ñu ngi leen nuyu di nuyu waa Touba TV yëpp di leen sant bu baax ci taxawaay bi rafet ngeen taxaw ci màggal Sëriñ Abdou Khadre gi ca waajtaay wi ba nga xam ne tey ñu ngi ci bis bi ci yor-yor gi ni nga ko waxee woon fa tabaarakallaahu waa tay moom jàll na ba agsi nañ ci yax cappaandaw ga agsi nañ ci bis bi mm, nin ko nin ko bëggoon a yëgle yëgle bi jàll na mbooloo mi ñëw na yi nga xam ne moom lañ doon soxla te duñ ko damaan ci autorité bi ak ci ñi nga xam ne ñooy municipalité dëkk bi ñooy lépp ku ci ne wax dëgg yàlla ku ci ne jéem nga ca li nga man lépp ba am na yu ci manqué waaye am amut solo moom ñun mën a jégale la ba tax nag côté boobu ñun ñoom matal matal nan daal liñ soxla woon si ñoom wax dëgg yàlla liñ man ñoom waaw dama koy wax rek nit day day jéem waaye yàlla mooy dogal hmm, moo tax am na yuñ soxla woon ca ca jotuñ ci waaye nag daan leen ko mën a jégal ngir lin def ni nga xam ne mooy bokki bi itam am na lu leen sàkkoo ñu waajale ko màggal gi ñoom moom ku ci lan la waxoon def nga ko ay jumtukaay yoo xam ne ko soxla woon ngir màggal gi ndax danoo bëgg incha allah fii ñaari at ñetteel bu màggal dikkatee suñ jumtukaay yëpp ñoo koy moomal suñu bopp moo tax ay daaw ñu wutu woon ay ciin ak ndab ren ñu jëmoon ci ay sees déwén xëy na leneen lay seetaat bu defee dañoo bëgg ñu yokkati si sam moom suñu bopp ci wàllu matériel màggal moo tax daayira yëpp lan leen sason def nañ ko bu baax a baax yëpp matal nañ participation yi nga xam ne waroon nañ ko def ci màggal gi itam ñoom ñëpp comme fédération Touba fédération Mbac Ndakaaru ak daayira yi nga xam ne individu la dañoo beru ci régions yi ñoom ñëpp ku ci ne daa am looy war la ci màggal gi ñoom ñëpp ku ci ne la nga waroon def ko ko sant nañ leen bu baax. ni ko noonu itam njàngum Alxuraan yi danoo am at jot dañuy def bu màggal gi defee une semaine dañuy Serigne Cheikh day joxe ndigal ñu daje fii ci kër gi saa bu ñu dafa jàng mu rayal leen aw nag im sanen bépp dañ koy def ba bisu tey bi bisu tey bi desee nag nga xam ne bisu màggal gi mag bi ñun ñëpp ñu dajee ci jàkka ji nag fa la ñuy yendu dafa jàngaar xam ne xanaa boo noppee sax war nga faa jaar gis leen foofu la mbooloo ñëpp nekk dafa jàngaar fa dafa jàng fasida ba takku saa ñu ñu defal leen seen benn fekk leen foofu euh, euh, la war ci yëpp ñu def li des ci bis bi itam incha boo dem ci mboolem wàkk seen xarit yi fu ci ne dañ fay berde ñor njàng alxuraan la ak i berne bu jàppee noonu nag ba nga xam ne ci ci takkusaan gi la autorité bi nag war a ñëw incha allah ñu mm, ndikkee ñoom it ñu ngi leen dalal fii ci kër Serigne Touba ga ba waxtu vingt et une heures incha allah ci leen bëgg a def cérémonie bi ren nag dama bëgg mu xawateel tuuti ndax daa dafa xawoon guddi ba yóbbu ñu ci dañ fay jógee baax ñuy delluwaat suñu kër ba def jëm ci toppatoo gan ñi guddi na guddi waaye koo xam ne moo tax ren ñu bëgg mu tënk ko mu tàmpale 21h au plus tard mu jeex 23h30 kon maa ngi delluwaat ci ci barab euh, loolu daal fi ne moo ci lan toll ñu ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne màggal gi ren wax dëgg yàlla maa ngi daaw gars yi doon maa tooñoon ne ma bi daa jëlul waaye ren nag moom jàll na bu baax a baax surtout seen plateau boobu moom moom moom am na lu mu def ci màggal loo xam ne yëg nañ ko bu baax kontaan nañ ci bu baax a baax ci tënk daal bu fekkee amaatoo lay laaj loolu moom ci lan toll waaw incha allah leen ne war na xam moom itam xam nga màggal gi dañ koo defal bi communauté communauté bi amee ba noppi bi yore organisation dañ ko def ay bi ñu ci rek nag mooy communication boobu dafa kenn da ko yorutoon yor bu yor bu leer moo tax daara mi sooxe ren nag duñ wut am na commune communication finance boo xam ne lu jëm ci màggal ci xaalis rek moo koy yore su ma jarbaat si Abdou Mbacke moom soxna mooy moo ko jiite ak suñu mbàkk Abdourahmane ñoom ñoo yore foofu am na commission boo xam ne restauration lu jëm ci togg rek lay yor am na fi am na commission boo xam ne dalal gan ñi rek lay am am commission boo xam ne cérémonie officielle képp lay lijjanti am commission boo xam ne de mooy yor fédération yi daayira yi moo leen toppatoo am commission boo xam ne mooy nekk Kër Sëriñ Tuubaa autorité moo leen toppatoo ak gan gan officiel yi noonu la ko toog léegi nag comité commission bi nga xam ne moo yor communication nag moom ren la lar na beru nag moom boppam ma ma dénk ko sama doom ji ñuy wax Saliou Mbacke maa ak ñu bari nag moom itam boobu moo ci yokku ba tax na boo gis ay bari na ay yoo xam ne daawuñ ko def am na écran géant boo xam ne daawuñ ko def am na ren ak yu bari boo xam ne yu bees la yoo xam ne yokkoon ko ci màggal gi loolu daal moo ci mooy li mooy li ci gën a bees ak li ñu ci yokkaat daal ak bëgg rek fas daal màgg bu ngeen sax fa la gën a amee wax dëgg yàlla jàpp ngeen ci bu baax presse moom ren moom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 ñëwoon nag <coughs> ci ndigalu Serigne Cheikh Deme délégation bi ñu fi yebal ci at bu jot moom rakkam boole ko lenn ci rakkam lenn ci doom yi ak dongo yi. mu ñëwoon teewal si ko fii ci sëriñ bi at mu jot nag ci sëriñ bi siyaare ko ko ñu sàkku it ay bis bi ci sàkku yi ñaan di sàkku wàllu ñaan yi mboolem taalibe yi yàlla defal leen wér defal leen xéewal te xiir leen ci sëriñ bi ñu bañ koo génn fenn ñu dikkoon nag doon ko doon fi teewal ci sëriñ bi rek kàddu yi nag moom xam naa du ndax dañu fee ñëw ci ci ma la ko waxee rek ci ndigalul sëriñ bi rek ngir ñu teewal ci ko fi nga taalal ma sa micro ma ne la ñàkk a sànni kàddu waaye ñun fii sax amuñu fi kàddu ndax Cheikh moom ci kër Serigne Touba la ma fa am mooy déglu baatum digal bu ko déggee rek jëfe ko waaye sañu fee wax dara ñoo ngi jéglu sax kàddu yi ñu yëkkati di ko wax mu mel ni dañu fee am baat te ñun su benn baat lañ fi mooy baatum digal rek ñu dégg ko du ko jëfee. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baado asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mm, Serigne Djibril Lo ñu ngi leen nuyu di nuyu waa Touba TV yëpp di leen sant bu baax ci taxawaay bi rafet ngeen taxaw ci màggal Serigne Abdou Khadir gi ca waajtaay wi ba nga xam ne tey ñu ngi ci bis bi ci yor-yor gi ni nga ko waxee woon fa tabaarakallaahu waa tay moom jàll na ba agsi nañ ci yax cappaandaw ga agsi nañ ci bis bi mm, nin ko nin ko bëggoon a yëgle yëgle bi jàll na mbooloo mi ñëw na yi nga xam ne moom lañ doon soxla te doon ko demande ci autorité bi ak ci ñi nga xam ne ñooy municipalité dëkk bi ñooy lépp ku ci ne wax dëgg yàlla ku ci ne jéem nga ca li nga man lépp mbax am na yu ci manqué waaye amut solo moom ñun mën a jégale la ba tax na côté boobu ñun ñoom matal matal nan daal liñ soxla woon si ñoom wax dëgg yàlla liñ ci man ñoom ndax li ma koy wax rek nit moom day day jéem waaye yàlla mooy dogal hmm, moo tax am na yuñ soxla woon ca ca jotuñ ci waaye nag daan leen ko mën a jégal ngir liñ def ni nga xam ne mooy bokki taalibe bi itam am na lu leen sàkkoo ñu waajale ko màggal gi ñoom moom ku ci ne lan la waxoon def ko ay jumtukaay yoo xam ne ko soxla woon ngir màggal gi ndax danoo bëgg incha allah fii ñaari at ñetteel bu màggal dikkatee suñ jumtukaay yëpp ñoo koy moom suñu bopp ma tax ay daaw ñu wutu woon ay ciin ak i ndab ren ñu jëmoon ci ay sees déwén xëy na leneen lay seetaat bu defee dañoo bëgg li ñuy yokkati si sam moom suñu bopp ci wàllu matériel màggal moo tax daayira yëpp lan leen sason def nañ ko bu baax a baax yëpp matal nañ participation yi nga xam ne waroon na ko def ci màggal gi itam ñoom ñëpp comme fédération Touba fédération Mbac Ndakaaru ak daayira yi nga xam ne individu danoo dañoo beru ci régions yi ñoom ñëpp ku ci ne daa am looy war la ci màggal gi ñoom ñëpp ku ci ne la nga waroon def nga ko sant nañ leen baax ni ko noonu itam njàngum Alxuraan mi danoo am jot dañuy def bu màggal gi desee une semaine dañuy Serigne Cheikh day joxe ndigal ñu daje fii ci kër gi saa bu ñu dafa jàng mu rayal leen aw nag insaan bépp dañ koy def ba bisu tey bi bisu tey bi desee nag nga xam ne bisu màggal gu mag bi ñun ñëpp ñu dajee ci yàkka ji nag fa la ñuy yendu dafa jàngaar xanaa boo na fee sax war nga faa jaar jël gis leen foofu la mbooloo ñëpp nekk dafa jàngaar fa dafa jàng xasida ba takku saan ñu defal leen si benn fekk leen foofu la war ci yoon ñu def li des ci bis bi itam incha allah noonu la ñuy continuer boo dem ci mboolem wàkk seen bi xarit fu ci ne dañ fay berdu ñor njàngam alxuraan la ak i berne bu jàppee noonu nag ba nga xam ne ci ci takkusaan gi la autorité bi nag war a ñëw incha allah bi ndikkee ñoom it ñu ngi leen dalal fii ci kër Serigne Touba ga ba waxtu vingt et une heures incha allah ci leen bëgg a def cérémonie bi ren nag dama bëgg mu xawateel tuuti ndax daa dafa xawoon guddi ba yóbbu ñu ci dañ fa jógee baata ñuy delluwaat suñu kër ba def jëm ci toppatoo gan ñi guddi na guddi waaye koo xam moo tax ren ñu bëgg mu tënk ko mu tàmpale 21h au plus tard mu jeex 23h30 vraiment ñu delluwaat ci delluwaat ci barab yi eh, loolu daal fi ne ci lan toll ñu ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne màggal gi ren wax dëgg yàlla maa ngi daaw gars yi doon maa tooñoon ne ma presse bi daa jëlul waaye ren nag moom jàll na bu baax a baax surtout seen plateau boobu moom moom moom am na lu mu def ci màggal gi loo xam ne yëg nañ ko bu baax kontaan nañ ci bu baax a baax ci tënk daal bu fekkee amaatoo laaj loolu moom seen tool waaw incha allah leen ne na xam moom itam xam nga màggal gi dañ koo defal bi communauté communauté bi amee ba noppi bi yore organisation ay bànqaas bànqaas bi ñu yokkaat rek nag mooy communication boobu dafa kenn da ko yor toon yor bu yor leer moo tax daara mi sooxe ren nag duñ koo wut am na communication finance boo xam ne lu jëm ci màggal ci xaalis rek moo koy yore suma jarbaat si Abdou Mbacke moom soxna mooy moo ko jiite ak suñu Mbacke Abdourahmane ñoom ñoo yore foofu am na boo xam ne restauration lu jëm ci togg rek lay am na fi am na commission boo xam ne dalal gan ñi rek lay am am commission boo xam ne euh, cérémonie officielle képp lay lijjanti am commission boo xam ne mooy yore fédération yi daayira yi moo leen toppatoo am boo xam ne mooy nekk moo leen toppatoo ak gan gan officiel yi noonu la ko toog léegi nag comité commission bi nga xam ne moo yor communication nag moom ren la lan na beru nag moom boppam ma ma dénk ko sama doom ji bari nag moom itam boobu moo ci yokku ba tax na boo gisee ren ay bari na ay affiches yoo xam ne daawuñu ko def am na ay écran géant boo xam ne daawuñu ko def am na ren ak yu bari boo xam ne yu bees la yoo xam ne yokkoon ko ci màggal gi loolu daal moo ci mooy li ci gën a bees ak li ñu ci daal ak bëgg nag fas daal màgg moom. bu ñuy màggale si leen dañoo bëgg moom di moom suñu lépp ba ke ba ba duñ soxla état bi ci wet googu dara moom. bu baax